dund bu cher bi ñu yàgg koo jàmbat ci réew mi tey jii nag foofee ca primature gouvernement bu Sénégal tey jii daan nañ ciy dugal seen loxo jaarle ko nag ci Ahmed Al Amin Lo mi nekk ministre secrétaire général du gouvernement daal di cay feggoog di ba mi ministre des finances et du budget ak kii di ma Mabouba Diagne di ministre de l' agriculture de la souveraineté alimentaire et de l' élevage waaye it le secrétaire général du ministre de l' industrie et du commerce xamante ne si ca jotaay ba moo fa teewal ilimaani jëwrin yi moom président Ousmane Sonko. Sonko mi nga xamante ne si jamono ji dafa ànd ak le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ab tukkib nemmeeku bu ñuy amal fële ca Sierra moom Ahmed Al Amin Lo nag fi mu dooree ay kàddoom mooy fàttali ñépp lu waral yenn njëg yi cher lool ci marché bi te li ko waral mbokk na ci wopp mbas mi fi jaaroon di Covid bi ak lii di guerre Russie ak Ukraine te suñ réew mi di Sénégal nag dafa bokk ci réew yi ëpp lu muy jéggaane ci li muy dunde moo taxit loolu laal na ko bu baax a ba mu ca toll jamono ji ci marché bi diis gu mu diis nag ci ndoddo askan wi moo waral gouvernement bu Sénégal jël ay dogal ne faaw ñu jàppale leen ci waaye loolu nag bu mënee nekk moom Ahmed Al Amin Lo ne dañ ciy sant di ci gërëm mbooleem ñi ci dugal seeni loxo ba mën yemb mu bokk ci nag entreprise yi opérateurs yi ba ci consommateurs yi ginnaaw ay waxtaan ak diisoo yu yàgg yuñ ci amal ndax bu ngeen fàttalikoo moom premier ministre Ousmane Sonko ci ndigal lu mu jotoon ci président de la république Bassirou Diomaye Faye amoon na ab ak ñii di waa compagnie sucrière bu Sénégal ba ci ay entreprise de télécommunication ñoo ginnaaw waxtaan wi jàkkaarloo nañu ak ay importateur ay distributeur ay commerçant ak industriel ba ci ay association de consommateur wéyal waxtaan wi tamit ba ci boulanger yi huilier yi cimentier yi ba ci importateur yeeg opérateur engrais yi yooyu waxtaan yi yépp ngir rek jotaay bi mënoon a am la maanaam xëy mën a wàññi dund gi moom Ahmed Al Amin loo secretaire général du gouvernement ne liggéey bii yépp buñ ko defee ba mën a wàññi as lëf ci dund gi faaw timit ñu am ak taxaw seetlu ak di saytu marché bi bañ mën jëfe nag ndigal yi ci njëg yooyu ñu wàññi nag mu bokk ci wàllum sukkar si ginnaaw ay waxtaan yu ñu ci am ak ñiy yëngu ci wàllu woowu yu ci mel ne compagnie sucrière bu Sénégal ci lañ jël dogal wàññi ci fukk dërëm maanaam sukkar si doon jar 650 léegi 600 francs lay jar ci wàllum ceeb bi riz brisé non parfumé bi ñu daal di ciy wàññi 40 francs maanaam léegi lañ koy jaayee du ëpp mukk 410 francs bu dee ceeb bi nga xamante ne si diñ koy jëlee Inde nag nee na ñu ngi ciy xaar lu tolloog 80 000 tonnes di juróom-ñett askan yoo xamante ne si yàpp nañ ko ci ay bato mu dëtmal si Sénégal mu mën a dugg ci marché bi nag fii ak ñaari weer maanaam mois d'août ci ay waxtaan yuñ ci séq ak gouvernement bu Inde ceeb boobu yegsee mënees na koo jëndee 400 francs bu dee diwlin gi nag daan ci wàññi lu tolloog ñaar fukki dërëm bu dee coowal mburu mi nag yiteeloon lool sàlleen yëg yi moom it secrétaire gouvernement bi ne amal nañ ci ay waxtaan yu xoot ak bu leen sey dogal yiñ ci jël jamono ji mooy daan ci wàññi ñetti dërëm maanaam baguette bi daan jar 175 mënees na koo am léegi si 160 ci jamono yi nu jëm ndax dinañ dem ba teggi TVA yi ak yeneen yu leen waroon ci wàllum blé bi bu ko defee nag ñu gën a mën a wàññi njëgu bagatu mburu bi lu jëm ci wàllum ciment bi tamit gouvernement bi daal dina ciy dugal loxoom ndax seetlu nañ ne ginnaaw li ñuy jëfandikoo muy ay lekk bokkaat na ci li gën a yitteel askan wi mooy ay dëkkuwaay moo taxit la ñu gis ne moom lañ ca war a def ngir mu mën a wàññeeku mooy teggi leen li ñuy woowee taxe parafiscale yi waaye nag buñ ko dindee ñi muy yitteel mooy ñiy tabax seeni kër waaye les grandes entreprises moom wàññi boobu du leen concerné ne du wàññi njëgu ciment bi rek mooy tax askan wi am ay dëkkuwaay moo tax lenn ci ay espace yu ñu am fu ci mel ne mbuurkat te ngeen déggoon fa coow li jamono yii ñu romb Ahmadou Al Amin loo ne lu mooy logement yi ñu fi sumboon dina jël barab yii dénk ko ay promoteur ñu man faa def ay dëkkuwaay buñ ca noppee man koo jébbal askan wi lu jëmit ci njëgu internet bi daal dinañ ciy wax secrétaire général bu gouvernement bi ne ginnaaw seen waxtaan ak waa Sonatel ci seen 5G bi ñu indi ngir gën a mën a dooleel connexion bi déggoo nañ ci ay wàññi jëmale ko ci connexion données mobile bi te sax tàmbale nañ koo fësal jamono yi ci yenn forfait yi lu jëm ci mbirum engrais beet téeméer boo jël dindi nañ ca ñaar fukk ak ñaar bu dee liñ fi wax lii lépp nag ci ay wàññi njëkk te lépp wéeru ci ginnaaw waxtaan wu yàgg wu ñu amal ak ñi mu yitteel laneen li ci war gouvernement bi tamit Ahmadou Al Amine Lo ne mooy gunge ko ba noppi ñàkk ko nañ koy defee nag mooy di saytu marché yi di xool njëg yi fu mu toll saa su ne di teg ay contrôle ngir mën a xool ndax jaaykat yi ñu ngi sàmmoon teg njëg yooyum déet te ci kaw gouvernement bi di ci tàllal loxo bu baax askan wi ndax ñoom ñoo war a nekk les premiers contrôleurs maanaam saytukat yi njëkk ñoom askan wi la war a doon buñ demee ba nemmeeku na kat am na ñuy teg yeneeni mbir yu xawwi dogal yi gouvernement bi daal di jël ñu man leen a clamé gouvernement bi man cee indi ay saafara loolu daal secrétaire gouvernement bi gis ne bis bu amee njëg yi nga xamante ne si moom la ñu homologué di muy yi ñu fësal ñépp daan mën a sàmmonteeg moom Ahmadou Al Amin Lo di xamle tamit ne gouvernement bi fës ka yéene li ñuy woowee ay magasin de témoin xamante ne si gouvernement bi ci boppam moo koy moom ndaxte gis nañ ne kët loolu bokk na ci li mën a yombal tamit askan wi ci yenn ci produit yi ñuy jëfandikoo te nekk magasin yooyu wenn saan la wu mën a jam ñaari picc ndax ginnaaw askan wi nañ ca mën a amee ay produit yu yomb daan ca mën a jël tamit ay nit ñu cay liggéey te ñañ ca gën a taamu nag di ndaw ñi ak jigéen ñi ngir rek mën a yokk xëy mi loolu nag mu koy misaale ci ak fàttali ci ñu xamoon dëgg Sonadis waaye moom Ahmadou Al Amin di xam ne magasin yooyu tamit gouvernement bi indiwu ko ngir concurrencer jaaykat yi déedéet magasin yooyu seen mébét lenn rek la mooy régulariser marché bi maanaam ñuy mën a xam ne marchandise bi ci njëg yi la toll jamono ji laneen lu jëm nag ci yenn produit yi nga xamante ne si diñ koy jiggaani muy ñëw ci biir réew mi Amadou Al Amine Lo ne dogal yi ci guvernement bi jël mooy daan ko gën a saytu caytu gi nag ñu jaarale ko ci xarala yu yees yi maanaam digitaliser ko loolu it dina yombal ñoom ñu gën koo mën a contrôler gouvernement bi di xamle nag ne lii lépp dañ koy defandi nii rek ngir jàppandi ci waaye fi ñu gën a sukkandiku dëgg-dëgg mooy ci sunu souveraineté alimentaire muy jëfandikoo li ci ëpp ñu téyel ko sunu bopp mu nekk ci sunuy loxo moo tax ci kaw lool it sunu produit local yi dinañ ko gën a jëmmal dooleel ko te ak ci loolu bu ñu teggiwul sunu loxo Sénégal dina bokk ci réew yi gën a yomb dund ci Afrique wax na tamit ci pétrole bi nga xamante ne si Sénégal mu ngi koy tàmbale di produire waaye Ahmadou Al Amin Lo ne laataa sax Sénégal di produire pétrole bi li xel mësula mën a nangu mooy yenn produit pétrole yi naka lay gën a mën a yombe ay maleek yeneen dëkk yu maanaam lu jug lu ne dina am ñu koy dogaale te kenn ku ci nekk di wut loo ca teg moo tax balay àgg ci loxoy askan wi foo jaar njëg li diis ba askan wi dootuñu ko àttan loolu nag gouvernement bu yees bi parce que yéen na koo dindi ba mu set wecc comme ni mu ko defee rek ci engrais bi jël rek yóbbu teg ci loxoy baykat yi te loolu buy am rek njëg li foo jaar muy oyof wàññi bi tamit gouvernement bi yëmalewu ko rek ci dund bi ñu ngi xalaat tamit lii ñuy woowee train de vie de l'état naka lañ koy wàññee bu baax a baax muy lenn ci ay koppar yu gouvernement bi di soxla ngir mën a doxal ay mbiram bëree bëri gouvernement bi daan ci génn ay koppar amaana matatu ko waaye tamit ñenn ci borom daraja yi faaw ñu leen di yamale ci mbir yi ndax buñ ne pétrole gaz ak essence ak yu ni mel diñ koy subventionné dañuy gis ne ay nit yu mënal seen bopp lool ñoom ñooy ñëw bëgg cee gën a jariñu secrétaire gouvernement bi am na subvention yoo xamante ne si ministre yeeg directeur yi ñi fi teewal ay fonds monétaire ak yu ni mel ñooñoo moom duñ ci mën a bokk dañ ciy seppi seeni loxo defaraat ko ba nga xamante ne si nit ñi koy yellool yittewoo ko ñoom ñoo ciy mën a bénéficié wu lii ñu jot a wàññi nag ak lu mu néew néew ay koppar yu bari la yu mu jural état bu Sénégal ndax buñ koy xayma ciy koppar dina dem ba tolloog juróom fukk ak ñett ci ay milliards yu waroon a dugg ci gafak ak réew mi ci ay impo ki taxe douane te nguur gi mujj koo teg ci suuf te loolu moo waral wàññite yii muy xamle ne def ñaari weer ci bopp nguur gi jël dogal ne dangay wàññi dund gi loolu ak pastefu la te nag slogan bii di jub jubal ak jubbanti dinañ ko def ci mbir mi nag ba mu baax lool ndax am réew boo ko yoree dangay fexe ba ña gën a néew doole nga leen di jàppale di leen teg jàppandal googu ci impôt yeeg yu ni rek nga ko mën a amee moo taxit muy sàkkuwaat ci ñépp ñuy fay impôt donte ne waxut ak kenn nag gafak ak mi nag loo mën a wax am nag yëngu-yëngu maanaam liñ koy yat na àttanu ko ndax boo yoree budget bu ñuy xayma ci juróom-ñaari junni milliards war caa génn ñaari junni milliards ci borog yu ni war a génn junni milliards ak lu teg ngir mën a fay say salaire war a génne juróom-benn junni milliards ngir mën a subventionné lu ci mel ne essence beeg gasoil bi bu dee ci dund gi nga war a génne lu toll ak juróomi junni milliards yu teg ngir mën ko subventionné ne lépp boo ko génnee ci sa budget daanaka dara du ca des te la ngay dese nag moom nga mën a woowee budget loolu lépp rek ngir wax wàññi dund bi buñ ko bëggee wéer ci ay subvention yu ni mel foo jaar mu yëngal budget réew mi waaye gouvernement bi ci li muy wootee te di ci tàllal loxo ñépp mooy ñu fexe booloo ba mën a am sunu souveraineté alimentaire ndax ci loolu rek lañ mën a amee dund bu wàññeeku te du laal benn yoon sunu gafakam réew cant ak ngërëm leen